seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim dellu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di bu baax suñuy kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla may gudd fan ak wér ñi jiitu yàlla nañ fa fee firdawsi ñoo ñañ fa fekk ak ña fa fekk ñi ci hôpitaux yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp képp ku ci lalu hôpital maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla fëgg sa bopp delloo la sa sa waaye macha allah ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen yàlla génne ñu ci bari njuumte la rek ay kit lu yàlla dogal yàlla na yàlla génne yépp ci sa biir tey nag bala maa sori sax may nuyu waaye derrière ndax tamit ñoom bàyyi nañu xel baax a baax a baax ma leen di ñaanal yàlla fu waay wuti yàlla na la yomb waaye soo bëggee ñibbisi tamit yàlla na la yomb may wax ni tey moom sama tem dawalkatu jakartaa yi soo waxee nag côté bi positif am na côté bu négatif waaye ñëw damay ñëw ci côté bu négatif ndax yi nga xam ne ñu ngi koy ñu koy daw ñu ngi këf ci jàmbur saagu jàmbur yi ak di dipp périg yu xale yi jigéen yi seen périg yi ñu koy këf di daw ñaaw na torop li ñu def jekkul rafetu loolu ñu nekke nañ ko bàyyi ndax yow yaa ngi daw këf yaa ngi këf di daw li nga war mi ngi daw xamoo ndax mën nga dajak leneen loo xam ne mën na la lor wala dee te bu keroogee boo ñàkkut sa bakkan bi nga amee laabu walla waaye loolu dara jarul nit ki li muy am war na ko mën a am ci diñu ceeb ak ci lu neex suñu borom waaye di këf di siif ngeen tax ba benn xale bu jigéen ñi meetu la taxaw ci trottoir bi di xaar taxi walla muy jaar ci roq boo xam ni lëndëm na fit yépp dem na ba ci maire yi sax dañ leen koy def da gis maire yi jóge xew di dem seen yoon ñu kar leen keroog kar nañ ci sama benn yaay saan tànk yi sax baaxul waaye boo gisee nañ ko def dañ ko daaneel bit ko mu daanu foqar ci pochette ba mu yoroon sotti la ca nekk ba pare dem seen yoon wallahi lazim muy raam ba këram diggante fa ñu ko ko defee ak këram sorewul mu leer la ne ña ko ko def xam nañ ko toroxal koo xam ne ëpp na leen sax yaay seen maam la ndax mag la man xawma li ñuy def buñ koy def dandul and ak seen sago xawma waye waaye ñaaw na trop lolou ngeen jëm ko bayyi ndax yow keuf bari wu xale bu jigeen su fekkente ni dañ ko ñew ci ba do ko do dem lo sam mu de wala nga ko bopam am problème ngay ñor di saag muy ak yow nga diri ko ci tali bi fofu sax lu ne mën na fa am lélé nga keuf dem ba ci ruq nga dindi ko do ca fekk dara lu ju carte jàmbur ak loo xam ne yow sax soxlawuloo ko mais këf nga ko daw nga daw daw ba sori te it rusa si ngaa ñëw di ko delloo léeg-léeg nga def ko koo xam ni sa wëllëre yaay lay doon baa koo xam ni xam nga ko ba xamaatoo ko waaye ba nga ko koy def xàmmee woo ko moom mu xàmmee la nag topp si la bu ñëwee seen kër fekk sa yaay fa mu toog yàlla bu sa yaay toog nekk këru famille di am fa ay mbañiru te bilaay ku sañoon boo juree sa doom bu gënul kenn kenn du ko gën nga toroxal sa ndey li gën a bon li gën a mën a toroxal waajur weesuwul a ah, saa yuñ ne ma nga police sa yaay jóg yóbbu nañ ko tribunal sa yaay jóg ma nga ca kaso ba sa yaay jóg te yéen a ngi ñàkk ñàkkal fayda yéen ñi càcc yi ca am na ñoo xam ne boo leen laalee dootoo laal mu pochette yu jàmbur këf saagu jàmbur ñu jàpp la ci yóbbu la ca prison bi li ci tëj ay ñetti weer wala ay ñeenti weer loolu lan moo ko jar jàpp sa yaay teg ko coono goo xam ni wallahi lazim mënoon nga koo faye leneen lu dul loolu ndax seen yaay dañoo sonn dañoo sëy ba dee billaahi day sëy nañ ba dee waaye yàlla da lay eh, jox jaboot kenn mel ca noo xam ni day yàq loo ma sa liggéey ci lu baax daf koy yàq xajamal sa liggéey bépp bépp bépp te defe naan tere la sa yaay biye màkk mbaa nga tere la sa yaay soo ko amul it nga bañ koo jox aj gàcceeg àdduna ndax gàcceeg àdduna weesuwul lii fu ñu tourné ne doomu jiw de fu ñu tourné ne doomu jiw de lan la def lan la def lan la def lan la def sax la wax xam naa ni tàmm laago la waaye defe naa ne diiñ dafa baax ci nit léeg sax ñu defante ko seen biir ndax kii day am jakarta yow nga nekk siirumaan mu jox la jakartaam nga daw ñaari faj ñett ñëw ni ko dañ ma agressé fekk kenn agressé la làq nga jakartaam fenn ñëw di ko tuur lëndam xool nan lay defantee yow su fekkente ni ñaari famille dañoo xamante ñu dawal yërmande bàyyi ko yàllaa ko dogal suñ toogee ñaari fan ñett nga dem summi jakartaam ba mu set habillé waat sa beneen habillage ñëw di ko romb nag sans du xam ni lii moom moo ko moom waaye borom bët bu rëy bi nga xam ni dara umb lu waay di def lu ne boo yeboo nga koy sóoraale ba sax nag man damaa ragal ko sàcc loo xam ne day daw ci tali eh, maara yi xew ci tali yi ni mu bare su la fekkee nga def koog boo xam ne moomuloo ko ba ci taximaan yi dañ leen koy def da gis taximaan bu ñu arrêté yenn heure yi yóbbu ma nga yëpp ko muy daw ak yow di daw ak yow ba ci ruq boo xam ni kenn du fa ne ñu yëkkati paaka teg ci sa put ni la indi li nga yor te nga wàcc taxi kenn ku ne na xam na ni bakkan du bakkan ngay sauver da daal di jël nag la nga yor rek ah jéem ko koo jox wàcc taxi ba jéem ko koo bàyyeel ba pare wëlbatikuwaat di def ay démarches dem ay police yu ne nga def ko ndeysaan jël rek ngir jotaat sa alal nañ ko bàyyi booy def lu neexul yàlla yàgg-yàgg di nga mësa a su fekkente ne da ngaa def ñëpp nga mën a def lu bon ñëpp nga mën a triande yaa ngi nax sa bopp am na ñoo xam ne boo leen laalee dootoo laala ci mukk waaw dootoo laala ci mukk mën nañ laa def loo xam ne di nga tàqaloo tàqalikook sa sago dootoo am dara nga rey sa ndey rey sa baay dugal nañ ci coono fu ñu toll di faj faj faj moo xam ne nag ko def yaa ngi ko gis ko dara tamit gisuma la ko ci côté positif mooy ñi nga xam ne ñuy ci liggéey di daan seen doole jëmbat ci seen fulla am ci seen ngor xam li ñu bëgg nag ndax defe naa ni yàlla du tëj bu tëj palanteer wàcc ñu fu boo këpp bëggee fii mu tëju rek demal feneen soo yoree sa jakarta am ci sa fulla ak sa fayda xam la nga bëgg xam ni mankat sama yaay mu nga ci kër ga war naa ko jox loo xam ne du ko wuti wëri fen te ndax man maay doomam di taawam doon doomam ju góor yoo xam ne wax dëgg yàlla rus naa sama yaay di ñaan kenn samay dund kon di nga ci am jom loo ngor nga koy teg ci fulla nga koy teg ñëw jox sa yaay mu lekk te mu rees jàmm léeg gis ñoo xam ne wax fa dëgg yàlla fulla lañ ci am dinañ ci yor seen jabar yor ci seen yaay di ci def lu ñu bëgg a def ci jakartaa bi sirumaan bu jub sax sirumaan bu so soo dawalee ñeenti weer juróom mën nga war nga mëna am yow jogu jakarta ne jëf nak ci la joxon ngay siiru tax yow liñ la versement lañ la laaj so versé bu paré leneen sopp yow ya ko bon waye fexé sa versement di maj waye do versé beneen bu ñu nga woko téléphone ni ko dara ci yaqku fekk dara du ci yaqku lol tamit wax fa dëgg yalla metti na dal metti na nañ jëma am jom am lu ñuy bëgg ci lu baax am lu ñuy bañ ci lu bon ndax wax ko dëgg yàlla ñii ñu nekk ci ci àdduna bi léegi dafa metti jakataay yóbbu nañu ci torop torop torop barki démmoo njaay lañ jël sama doom ji ko ci faj bi fekk ko mu taxaw di xaar jakartaa mais waaj bi mu ñëwee bi mu bufee saag bi wallahi lazim dafa sax tertere dafa tiit këf na saag ba yóbbu na ko fekk ca loo xam ne arrangé na ko sànni na saag ba carte d'identité rey ko te moom la mu bëggoon amu ko dégg nañ na ko for saag bi sax ak carte d'identité bi boo woote ci mais kamu woo eh, yëf yi def ko jëli kaw ba mu ne xaw ma ko ma bëgg su fekkente ni mi ngi carte d'identité bi ak numéro téléphone boobu na ci woote waat su ci woote waatee man maa ngi fii prestige wala jaru sax ñu woote ne laaj ci prestige ñu ñëw su ñëwee ma fekkee man incha allah dinaa récupérer saag bi ndax faj yu ñaawa ngoogu yu ñuy def te jaru ko daaw bi may pare dem màkka noonu lañ ma def bi ma taxaw ci garage ñooto jullitin ba pare taxaw foofu di compose sama téléphone fala ma ñaar xale yu yott jakarta depuis buñ lay këf di la siib seen mbaxana yu guddi yooyu ñuy sol doo leen sax xàmmee fa lañ ma fekk bi mu bifee sama pochette man sa dema sax tiit 30 minutes ñu sànnil ma ko sa dem sama carte d'identité moo tax ko sama pochette jël nañ xaalis ma mais man mënuñu maa jël ci ma sàkk rek moo mën a dara lekk nañ xaas ba waaye boo léegi dinañ ko layoo ndax maa ko ñàkk sama alal la waaye li ñuy def baaxul jekkul rafetul maire yiñ ci boole tamit rafetul ndax boo sóoraale ne jigéen moo la jur waroo mën a toroxal jigéen yóbbu ngeen xale yi jigéen torop torop torop bàyyi leen li ngeen di def jekkul jaaduwul li ngeen di wut mën ngeen ko am ci seen dignité ak yoon siraatal liggéey jafewu waaye bu fekkente ne liggéey boo gis xeeb ko tamit di taamu day metti day metti ak tam wutin bu gaaw bi aussi jaru ko mooy nii rek këf siif gisum mu am yow loo ca def na la leer ni soo ko tiimee di nga xam ne lii ma def jaaduwul ci ma ko amee boo ca jëndee mbubboo dal mbaa nga dem lakkul ci sa dibi loo ci mën ci def rek soo ko tiimee xam ne man na ma ko amee jaadu kon defe naa ne lu ndew gisuma lan moo ko dàq may wax ni xale góor yi koy def nañ ko bàyyi li may wax nag sama bopp laa ko njëkke ndax damaa wax ni doom gejj la rek da ngay weer xamoo koy were ñuy ñaan yàlla nañ yàlla jubal te jubal lañ ñu waaye li ñu nekkee rafetul nañ bàyyi li ñuy def buñ jógee jàpp ah nit ñi di leen siif di leen def yoo xam ne jaaduwul benn yoon jekkul rafetul nañ ko bàyyi te lépp ci jigéen ñi lañ koy def man xaw tax ñu singali jigéen ñi waaye ñoom it léeg ñu jekku leen léeg gis kuñ ci wa ndeysaan borom jakarta bu ñu jël yóbbu ci ruq daw moom ba yegg ray la ngir ngir lan ngir nangu jakarta bi nga yor jaral na leen ñu faat sa bakkan ñaaw na ñi ngeen jàppe jakarta du yoon de bu yàgguloo njaay rey nañ ci xale daw moom ba côté balaa be rey ko nangu jakarta bi ay mbokkam di wër xoolal lool ni mettee loo xam ne ay xotti kese la nga jël ko fàcc bakkan ay waay boo liggéey dina doy waar trop trop trop ay wax ne nañ ko bàyyi nañ jubal nañ jubal lii may wax nag ñi ci def seen fulla ak seen fayda xam lañ ci bëgg taxu ñu may wax waaye ñi nga xam ne loolu moo leen ci tax a jóg nañ ko bàyyi nan bàyyi nit ñi defee jakartaa yi lillahi wa rasuli jëm leen a jubal ci jub am na solo trop am na solo trop waaye booy dox sax sa fit day ku ci mel ni man wallahi lazim ku ñu ma rombe rek sama fit danaan def pour man nañ ma defoon nag nañ may defaat te wax ko dëgg yàlla jaaduwul keroog benn xew boo xam ne maire bi dafa génn taxaw di xaar taxi mais waaye bu ko fa borom jakarta bu fekkee bu fif kook pochetam xam nga loolu jaaduwul koo xam ne xamoon la la nekk ca biir pochette ba nan la def ba am nga ñëw fekk ko fa fif ko buñ lay këf duñu xalaat sa daanu duñu xalaat lay dal duñu xalaat lenn ñoom la ñu bëgg nan ko am rek wallahi lazim def nga loo xam ni boo yëgoon doo ko def waaye nan nga mën a daw daw ak alir ba pare këpp dara gën a daw waa léegi boo dajee oto bu la fël yow nan ngay def boo ci ñàkkee sa bakkan nan ngay def soo ci amee laago boo xam ne doo ko fàtte mukk nan ngay def dara jaru ko jéem leen a jubal sa liggéey am na solo torop waaye nii ngeen bëgg a jàppoo seen àdduna ah lay war a suuli ñu koy def nañ ko bàyyi ñu ko dul def nag ah macha allah ndax man jakartaaye ma gis euh, jàkka Alpha Combaan euh, macha allah xale yooyu góor a gay mooy seen président da ngay gis ñuy def seen bëccëg 2000 francs chaque mois bëccëg 3000 chaque mois mu am ku mu teggil bu la teggilee sa problème bépp di ko faj mais soo yoree dara di ci liggéey am ci sa fulla ak sa fayda wallahi lazim man mën nga ko kenn du la yëpp dañoo jub ba pare di jubal waaye nag bu la fekkee te ne yow t'en fous ah seetoo ci leen lu rafet ñoo toroxale sa ndey ngay wut ñoo toroxale sa baay ngay wut tamit jekkul yow say waajur danga nga leen a war a defal loo xam bu ñu génnee bu ñu nee kee mooy yaayu diw mu doon lu neex loo kàddu gu neex goo xam ne leen ko teg ci seen der doom waaye fu mu moom fu mu bu génnee rek mbaa mu toog ca biir kër ga bu ñu nee salaamaaleykum sax fi tëm tëm defati na njaaxum lay na ñoo xam ne ñoo yóbbu seen sëtu yaay bu ñu xasee génn ku ne salaamaaleykum seen sëtu yaay ne tëf ne dafa dina jaaxul xam nga loolu sonal sa waajur la waajur waruñu koo faye lool de waruñoo faye suñu waajur li lool de waajur noo ko war a faye fexe koo yóbbu màkk fexe koo teral ba du ñee benn moroomam te bul xeeb benn liggéey boo sellal te ko ci yoon saata mustaxima suñu borom dina la won billaahi waaye nag bu fekkente ne yow noo ko amee baax day métti loolu day métti trop ngeen bàyyi li ngeen di def jaaduwul yemuñ sax peut-être da nga yor sax léeg-léeg jakarta day yeb moroom góoram ne moom mu xool bagage mu intéressé ko rek mu maam ak moom dugg ak moom foo xam ni dangay waaru bif ko mu daanu mu dawal jakarta bi dem mbaam ne ko may ma ma wàcc fii kooku wàcc mu defan da koy wa day wàcc ndax mënta jàll ak moom mu daal daw dem xam nga tam yooyu jekkul ay waay nañ leen bàyyi ñu nekke du dëgg du yoon ay waay xale góor yi ma waxati ñi baax taxu ñu may wax ñi ci liggéey di tedd seeni waajur taxu ñu may wax ñuy def beneen sens bi ñoo ma tax di wax te tax fee bari am naa ci gis sama morom amati na ci gis nañu bàyyi loolu jekkul jaaduwul jubal leen lillahi wa rasuli bàyyi leen coono yi ngeen di teg seen waajur yi yow da ngay am mag rakk bu jigéen mbaa nga am mag bu jigéen fu mu génn ñu ne ko sa jee def nangam fu mu génn ñu ne ko sa rakk jee fi def nangam day dem ba dootul bëgg bokk sax ak yow dootul bëgg bokk ak yow ngir yàlla lillahi wa rasuli dañ ko bàyyi àndandoo bu baax lii bu baax nga ànd ak waaye su fekkente dangaa baax ba pare ku bañ jóge fële ni na lan ànd bu yàq la day gaaw ndax ñu ci bari complexe moo leen koy yóbbu waaye soo amee sa fulla am sa fayda doo ma fekk ma baax ba pare nga mel neneen ñëw di dugg di ma dugg may ànd ak yow day gaaw pour mu yàq waaw parce que yow yàlla da lay jël baaxal la doo tux doo naan doo log doo def dara daan sa doole moo la ñor yàlla na tollaa xarit boo xam ne day ñëw yooyu yépp da koy def su fekkente ni complexe nga yéen tey ànd bokk waaw ndax beneen àndandoo bu bon day yàq bu baax waaye àndandoo bu baax it mën naa defar bi bon ñaari sens yooyu yëpp am na waaye man soo jógee fële mel sa ni nga mel pour la ju ma sëkk lay am ñu la soo mënul bàyyi sa nii nga mel demal ma dem parce que àndoon lëngoo dafa neex waaye koo bàyyi mu dem ak mbaggam lëngoo dafa neex mais koo bàyyi mu demal ak doo ma yàq sama àdduna du ma góorlu du ma góorgóorlu ba baax nga yow di ma ko yàqal ngir yàlla nen ku nekk na am boobu fula tamit bul bëgg nit ba rus koo wax li nekk ci yow su ngeen di ànd da di waxante dëgg waxante dëgg weesuwul gis ko muy jàdd nara aw yoon woo xam ne baaxul nga ni ko hey soo bëggee ñu ànd ñii yoon bii nga jaar bu ci jaar duma ci ànd ak yow te nag sax koy waxtaanal mu bon ngay waxtaan ak moom di ko xamal ni sa waajur yow rek la am yow lay yaakaar ci yow la wékku war naa mën a changer nag war naa mën a defe neneen nag lu nag wax ko dëgg yàlla di toroxal say waajur doom ji toroxal waajur yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal yoon wi ñu jël ci jakartaay nag baaxul yàgg na nag ñit ñaa ngi koy jooytu rek nee nañ ci jakartaay duggee ba tey daf fee bari du sac de muri sa greffage loolu yëpp daf fee bari may wax ni jekkul nañ ko bàyyi lu rafetul jarta jàng jarta mën dégg ko indi samay bool la maa ko moom bi ci des mooy saag bii mayor Cheikh Mbacke Sène xale la étudiant la mais su gis ne su vacances jotee day ut koy jëm seen dëkk jëm jiwi bay balaa yooyu yépp bu jotagul tey dugg ci biir marché bi di jënd ji jaay gis nga saag bi daf koy jaay di ñëw ay yéreem yu baax di jaay ay xaritam xanaa kooku bëgg bëggula rusloo ndeyam kooku bëgg naa dimbali ndeyam dimbali boppam ndax foo jaar ñu naan ma nga nee ma nga nee nag am ñaari ma nga nee am na ma nga nee moytu leen ko am ma nga nee kee ko neex naa jur yoo ñaari joo yëpp am na waaye Cheikh Mbacke moom macha allah laaw la cat yal na ko yàlla suñu borom doole saag yaa ngi rafet na yére ya muy ñëw rafet na bëgg ñu jàppale ko bu baax a baax ndax xam nga ku neex a jàppale ki nga xam ne am na fu mu euh, njoowaano kooku neex naa jàppale muy Cheikh Mbacke yàlla Ah, may sant bu baax gërëm la DG Pape Doumbia di ko wax ne jàpp mu dëgg ñod bu daggu rek di yal na yàlla lafal la cat bu baax a baax bu bàyyi laa sa sago nag yal la yàlla bàyyi sa sago ndax boo bërewul it ñu bëre daanu ci sa kaw waaye yow yàlla bu la kenn jege ma lay ñaanal yàlla yàlla dool sa sutura bu baax a baax fi nga bëgg a yegg yaa ko xam yàlla la fa suñu borom yeggale yàlla bàyyi la sa ñaari soxna yu baax yooyu di faama ak kumba bàyyi la ak say waajur bu baax ak yi jokk ci yow yow pap kenn merewu la ah, kenn du la xam di la mere ëpp ngaa bañ a yàlla dool sa sutura may sant sama yaay bu baax di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla may gudd mag gi nga xam ne ci man la nekk dafa xaw a tawat yal na yàlla fëgg boppam bu baax a baax a baax may gërëm tayet bi may ñëwal muy bilaal maa ngi koy ñaanal yàlla ak ma maam ma ca marché maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan maam jaaram mbay ñang sofi saw Mouhamed waaye duma fàtte mukk mukk mukk sama boutique bi nga xam ne moo may jox daara alimentaire maa ngi koy ñu ñu sàmbay sëñ Modou Ndiaye ki nga xam ne moo may jox li may diwoo gars yaa ngi may sonal ci looy diwoo waaw wax leen ko boog mbaama wax leen ko ma lay ñaanal yàlla yaag sa staff yàlla bu ngeen bisu lu leen jaaxal may nuyu sama mbokk yi bu baax sama am di jàmm yi merew ma kenn waa merew ma kenn yaa si jóg sama yaay ci kër bi maa leen di ñaanal yàlla sama ay dëgg yàlla na ko yàlla may gudd kon ak wér ak wér le fii la